lu toll ci junni doomi aadama ñàkk nañu seen bakkan ci yangu-yangu suuf si am ci yenn bërëb yi nekk Maroc mu nekk jaayi bu tiis loolu marocain yi nekk fii ci senegal fu mu nekk nii ni ngi triste métti ni ngi toog di xool information comme li ma la wax rek fu mu toll ni ay huit cent et quelque na na ñaan yàlla ne yam ci ci loolu donc euh, métti na c'est difficile. ànd ci ak tiitaange ñu ngi ñaan yàlla rek mu yam fii. Euh, métti na métti na ma waxoon ci français dafa métti euh, damay présenter sama condoléance à peuple marocain euh, woote na sama sama xarit ak sama sama famille. ils sont sains au sauf alhamdulilah mais am na yoo xamante ni ngi ci biir village yi ci biir. ci biir Maroc xam euh, nga aussi c'est pas tout le Maroc am na ay ville Marrakech et les environs foofu la am dégâts lu bëri mais bon vraiment on pour eux ils sont solidaires entre eux les Marocains sont actuellement dans des cas difficiles sont en train de compter leur dañuy compter euh, gaanu gaanu yi blessés aussi bëri nañ euh, lu ñu espérer duñu yokk décès yi décès yi dafa bëri donc euh, ni ma laaj mooy euh, suñuy mbokk Sénégal yi julli ñaan ñaan yàlla affaire bi moo yem ci lu mu yem lu mu nekkoon ak euh, ñi dem ci yàlla mu xaarikul janna rek loolu la ñuy ñaan yàlla actuellement li ñu la mën a waxee rek di ñaax seen mbokk yi nekk Maroc ñu gën a woyal solidarité seen diggante maye deret gi wàllu ñi nga xamante ni ñoo nekk ci situation. surtout deret yi am nañu laajte li ma dégg ci information deret lañuy laaj ci hôpitaux ñaan yàlla ñi ñaan marocain yi dem euh, hôpitaux yi am nay commencé dem gis naa ci télé yi dem euh, hôpitaux yi di may euh, deret aussi ñu ngi fàtte suñu roi Sa Majesté dafa ordonné muy def benn hôpital bu mag hôpital militaire loolu dafay jàppale victimes yi kooku am na solo xo bu baax donc ñu ñaan yàlla aussi ko mën a dem hôpital may deret Et puis, bon, les Marocains, ils ils son solidaire automatique. Ils sont solidaires entre eux. E, léegi fu mu nekk nii dégâts yi e, yi yi dem ci yàlla mënuñ si dara extérieur ak intérieur la ñuy mën a def moom ñuy ñaan rek fu mu nekk nii boo yónnee lu mën a ban aide la mën a delluwaat ko e, ko ko ñàkk doomam wala yaayam wala ñaan rek fu mu nekk nii moom catastrophe am na comme catastrophe moom moo am ci adduna yëpp ay Turquie foo nekk day am ñu ñaan yàlla rek ñoom ñu dem ci aljanna rek. bilan bi mu ngi woy di gën a diis junni ak ñaari téeméeru doomi aadama faatu nañ ci am itamit ñi bëri ñi ci jëlee ay gaañu gaañu yu metti mu nekk situation bu métti rawatina ci marocain yi nekk fii ci Sénégal ñu ngi ñaax seen mbokk yi rekk ñu gën a dolli solidarité seen diggante.